c'est c'est problème dama lay bàyyi tuuti nga soufflé. ma doog a ñëwaat ci yow monsieur Ngom. alors monsieur Fall instant bi euh, Sénégal instant bi euh, li leen dal mooy inondation yi. Mhm. et que aujourd'hui ñu xam Pastef lu a xam Pastef lan la def aujourd'hui tey pour sinistré yi. Euh, Pastef la def pour sinistré yi. Mhm. d'abord Pastef n'est pas au pouvoir. Mhm. li mu mën mooy dem seeti leen. defal leen. Euh, li ñu am akas néew ki suñu doole. ñu jàppale leen ci. bariwul nag parce que du ñu parti boo xam ni ay milliardaires ñoo fa nekk. Euh, c'est le don de soi pour la patrie. mooy suñu mooy suñu mooy suñu maxime. loolu la ñuy doxee donc fu ñu dem. dinañu wax sénégalais yi li tax loolu arrivé leen defal leen ba pare li ñu am akas néew ñu bokkoo ñoom loolu lañu mën a apporter ci inondation yi au-delà de tout nag quand même il y a des aspects techniques yoo xam ni. Mhm. aussi génn nañ ko. Mhm. Euh, parce que Macky Sall dafa taxaw. président Macky Sall. waaw mais xam nga moom gars yi muy àndal sax Macky Sall wax. son excellence. waaw leur excellence à eux. <laughs> gars yi ñu àndal sax Macky Sall la ñuy wax donc loolu garaawul. parce que Macky Sall sax le fait que xam nga xam nga même aux États-Unis uh-huh. euh, le président américain dañuy jaar ci turam nii ça ne ça ne mais pas boo demee en France ici. Uh-huh. donc euh, ah, notre ami. mais yéen xam nga en fait Sénégalais on a tendance à banaliser maintenant les institutions parce que tey ma damay seddu lu bëri. président Ousmane Sonko suy wax dañuy ne président Ousmane son mhm. patriote yi waa Pastef yi mhm. donc tant soit peu Macky Sall est le président élu du Sénégal. donc mhm. da ngeen ko war a jox cër bi ko yàlla jox. waaw mais xam nga xam nga xam nga c'est culturel chez nous Sénégal. Euh, boo xoolee Abdoulaye Wade kenn daawul sax kenn daawul wax président Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade lañ daan wax. Abdou Diouf Abdou Diouf la bàyyi ma bàyyi la nga déglu voilà en fait. tu sais eh, Paco je suis d'accord avec toi dañu war a institution parce que ñun ëllëg. Mhm. dañu aspirer. nekk à la tête de ces institutions la mhm. mhm. donc ñun bu ñu ko banaliser. ba léegi les gens vont faire la même chose parce que fii aussi loo fi def rek bor la dañ la koy fay. donc nous sommes d'accord man nous sommes légalistes c'est pourquoi nous nous disons patriotes. donc euh, Macky Sall le président Macky Sall. moom moo taxaw ne. il a réglé des le problème des inondations mm-hmm. mu ne ci ñeenti at laa ko réglé mm-hmm. ndox mi ñëw mm-hmm. mu ne leen mënumaa téye asamaan si